jël leen ay armes yu sophistiquées jox leen ko mais ces gens là amatuñu benn nouvelle ci ñoom fan la ñu nekk. mën nañ ko sax agressé. tey gis jàpp Jérôme bi tu sais ce qui est intéressant dans jàpp Jérôme bi. et que euh, vraiment vraiment maa ngi exhorté war les autorités. Mhm. ñu xool ñiy mener enquête bi. parce que Jérôme c'est une miine d'or en termes d'information. Mhm. léegi nag ñan ñoo yor enquête bi nan lañ koy defee. C'est ça le problème. Mhm. Parce que s'il parle s'il parle ponkal yu bëri ponkal yu bëri danañu daanu moi je sama crainte mooy est-ce que liñ ci xaar yëpp est-ce que on l'aura liñ ci xaar yëpp mais dama ne la jàpp Jérôme c'est une mine d'or. Mmh. ça peut révéler beaucoup de choses te ni ko journaux yi bindee. ne il fréquentait tout le monde dans les ci ponte euh, ancien euh, régime bi mais pourquoi pourquoi il avait il avait ces <laughs> relations là avec ces pontes de la République là tin li nga wax nii rek man hier je discutais avec un ami il a les mêmes craintes mm-hmm. au à propos de l'enquête c'est ça moom sax il disait ni que enquête bi waruñu ko jox waa di waa gendarmerie ñoo war a récupérer effectivement dossier bi parce que on l'a vu à côté de la police donc si on le voit à côté de la police il y a des gradés qui sont mêlés dans cette histoire là. et ouais. les gradés là jusqu'à présent ils sont là mais dégg la wax. Jérôme hmm. du extraterrestre boo xam ne day xëy ñëw nekk ci biir les FDS di imposer. effectivement am na lu ko dugal foofu. Hmm. am na lu ko dugal foofu kan moo ko woolu foofu kan moo kan la doon liggéeyal et qu'est-ce quel était son rôle véritablement ci manif yi tout ça c'est des choses yoo xam ne buñ ñu jéem a parce que. on parle de Jérôme de Jérôme de Jérôme ba finalement ñëpp ñu ngi focus ci Jérôme ci Jérôme ci mais derrière Jérôme il y tellement de hmm? choses que nit ñi moom la ñu war a xam loo ma tax moo doon ni que même les officiers sax le voyage a war a <laughs> suspendre ñëpp ñu toog ci dëkk bi c'est vrai il y a des yi nga xam gis nga bis bu waxee hmm. tu verras des officiers supérieurs yi nga xam ne leen di dem jël mën a leen yóbbu leen parce que gis nga à ce rythme là gars yi dañu bëgg a gëmloo ne tous les sales boulots c'est Jérôme. Mm-hmm. c'est ça il cherche pas est-ce que yaa ngi yaa ngi gis communication bi. ni muy demee sans cause. voilà yaa ngi gis communication bi ni muy demee ah tous les sales boulots c'était Jérôme. ñun on n'a pas élu Jérôme. Hmm. Jérôme n'avait aucune fonction officielle. officielle mais pourquoi Jérôme est cité partout et on le voyait partout. Jérôme c'était l'ami de beaucoup de FDS dañ doon gis ci manifestation yi loolu les vidéos sont là kan moo ko may sañ-sañ boobu ak pouvoir bi ak pouvoir bi kan moo ko ko may mais Samba foofu seen moyen de communication seen méthode de communication elle n'est pas bonne c'est pourquoi elle n'est pas bonne hmm. parce loolu ça rajoute de la pression sur les épaules de Jérôme policier dañuy taxaw ne la gis nga ñëpp ne yow la dañuy gars yi dañuy sumee su sa kaw su ma doon yow nga wax

Et moi, je ne peux pas comprendre parce que d'après les informations yi ma am, Jérôme était là. Mm -hmm. Et habitait dans un logement de fonction. de fonction waaw ci la dëkkoon logement de fonction. waaw. mais logement de fonction bi il faut savoir logement de fonction à qui la présidence wala à la primature. c'est-à-dire que y a beaucoup de non-dits xam nañ ko ko parce que man dama jàpp ne avec tout li doon peser ci koom yëpp. parce que Jérôme c'est pas la première fois que les gens parlent de lui ci biir manifestation yëpp nit ñi doon ba nit ñi dañ ko doon pour dañ ko doon suivre sax di ko photo mhm. ci ay restaurant li ñu wax yëpp pourquoi dès les premières heures dawul pourquoi ensuite mu loge ci logement, de fonction au cœur du centre-ville en mhm. plein cœur centre-ville non déglu ma la poste. côté mhm. poste kii la Sandaga gëstu poste Sandaga bi. côté poste bi la waaw ah, xam nga boobu mu nekk fii donc. Euh, ah est-ce que jàppul woon ni peut-être. jàpp ah. non mënu ko jàpp parce que. je Jérôme c'est pas maintenant que les gens de lui de. waaw Tunkara bi nekk États-Unis moo njëkk a génne photom mhm. Mola Morgan ensuite les patriotes à chaque fois il faisait circuler ses photos. mu nekk yenn yi ci biir ay manifestation mu yor arme cest di que les gens man je mu demande te am na beneen coïncidence boo xam ne aussi yaa Moussa euh, suivre leen ko de près mooy ban suivre leen ko de près keroog ba ñu jàppee Jérôme keroog ba ñu jàppee Jérôme mhm. ma jàmbal a fait un tweet il a été le premier à parler ouais. il a le premier à parler waaw lees waxut nag lees waxul. nañ dem rek. yaa Moussa ah, lees waxul mooy comme boo ma kër ga rek te mu kër gi. <laughs> rasé. rasé totalement la maison. Ah. Ah. en tout cas xam nañ dem ba rek. yaa Moussa sa jàngat par rapport ak mbirum Jérôme Bandiaky bi nga xamante ni dégg nga ñoom Saliou lu ñu wax bu ñu moyul bu waxee daanaka réew mi dana yëngu. waaw xam moom xanaa waxaat rek. waaw naa fi amal parcours am. dressé benn portrait ci ay jaar-jaaram mm-hmm. ba daraja ak doole gi nga xamante ni amoon na ko ci régime Macky Sall ci wàllu sécurité mm-hmm. mais doyen am na lu bëri lim ci dolli léegi mais encore une fois ñu rappeler ci wàllu xibaar garde à vue prolongé nañ ko donc loolu tamit c'est important de le de le de le de, de le rappeler que procureur bi donc ci ay instructions donc procureur de la République mais il faut rappeler aussi que aucune charge fi mu nii Euh, pesé wul ci ndoddam mhm. donc rien n'a été retenu pour le ci ñu wax ni lii la def wala deful li donc ba tey audition ak enquête baa ngi dox di wuy parce que nekk na élément boo xamante ni ragal nañ ni nag euh, ndax tàmbali na wax sax naam ndax mbirum passeport gi ma fi soulever léegi defe naa doyen revenir na ci circonstances yi parce que à un moment donné bi muy turee di am taxawaay ci régime gi weesu ba ni muy nekkee premier ministre Jérôme bokkoon na ci ñi nga xamante ni tax daf leen wax ni maanaam ci circonstances yooyu leen ko joxee li nga xamante ni moom mooy passeport euh, diplomatique yi mais damay ragal boîte à moom moo nekk ci mbirum Jérôme mhm. Bandiaky mhm. euh, te du ñàkk xëy na enquêteurs yi euh, dinañ ko wax loo parce que gars yi dinañ la tànc tànc goo xamante ni ci ay question parce que gars yi xëy ñu rek encore une fois foog ñu xaw logique tuuti quoi. mais mhm. demee logique xel comme quoi. maanaam lu tax salaamaaleykum maaleykum salaam rek les yeux wala les enquêtes braquées ci jëmm Jérôme Bandiaky. Mhm. Hmm? il n'est dans cette république ci ñu daan jëflanteeg régime gi weesu n'est-ce pas. Mhm. kon cela dire que gars yi am na en amont ni ko sëriñ Saliou di waxee loo xam ne toog nañ ci yor nañ ko. ñu waaw ah, waaw. léegi nag ñaara bu ñu la wooloo nga ñëw ñu ne la ah kat dañ bëggoon xam dossier sàngam wala xew-xew sàngam la ca xew yow lu ciy sa responsabilité donc nga leeralal ñu su la wóoree ni la ne nekk yaa def wala impliqué wu nga ci gis nga man situation yi ne mel coopérer. yaa Moussa foofu. y a un fait que les Sénégalais n'ont pas fait attention. Mhm. Mhm. Jérôme joxuñu ko convocation. Mhm, dañ ko jëlee bi il a man daa mandat ne ah maanaam dañ lay ñëw dañ lay jël si par. par force da ngay bàyyi li ngay def yëpp nga ñëw nga nga topp ñu. heureusement qu'il a coopéré parce que tamit risque amoon na ci. ndax ñi ko dem jëli unité la boo xamante ni unité d'élite la. non non c'est pas c'est pas n'importe qui qui envoie ah, oh, ragaloon nañ c'est vrai que son avocat hmm. bi nga xamante ni moom lañ ko cueillir parce que amoon nañ ci yéen humilier ko parce que c'était devant sa femme et ses ah, ne nag la fekkee moom dalee bu taxañ la ne la ñu dem donc ah. mais mbirum Jérôme <coughs> Bandiaky mais mais El Hadj Diouf ça c'est pas une première cette pratique-là mhm. booy patriote yi bu ñu leen mais da nga naan benn terroriste la gars yi di jëli waaw ah, ndax seen façon et et puis tu sais les agents là ils sont tellement assermentés xam nañ ban type de personne la ñuy jëli ak bu ñu ko jëlee lan moo leen si mën parce que d'après les informations il y a eu de la résistance mhm. il y a eu de la résistance et je sais que s'il n'y avait pas